وجهت لله حمدا وهو كرمني بالمصطفى وبه جاد بالأمن وجهت لله حمدا وهو كرمني بالمصطفى وبه جاد بالأمن وجهت لله المصطفى وبه لجاد بالأمل وجعت لله kon li ngeen def muy nuru nit ñu ndaw waaye la ci ëpp solo mooy xol yu booloo ndax mën naa mbooloo mi wu noonu waye ay xol sun bolo rek sun borom day def lañu def day barkel kon suñ Cheikh ñu ngi leen sant bu baax Cheikh ibrahim lolu mo doon presque kàddu yi rek ndax ñom ñi góor yalla yi tamit ñëw gën waroon ñoo fekk ci sëñ bi dañ ko muju baye ñomit nek ci wañu ak xewal yi ñu joxe yëpp te lolu tamit lu jaar la lu naturel la ca soxna yi ñu ëpp ci mbooloo mi ñoo fi nekk ak soxna yu góor yàlla yoo xam ne ñenn ñaa ngi ndakaaru ñu di ay jàmbaar lool ca comme ni ma ko waxee togg dafa metti waaye wax dëgg yàlla xéewale na lool ca doy na ca neex na lool tamit yàlla leen suñ boroom taxawu defal leen njabootu lislaam bu barkeel yoo xam ne diine da ciy njëkk ca mujj ci kon sëñ Cheikh Cheikh Ibrahim ñu ngi leen di saarwaat bu baax a baax baax lii leen amoon ci ay kàddu yoo xam ne te daara tey bi ngeen di jógee Ndakaar du ñëw comme si kenn kenn ko am gàkk gàkk xor te bi nga ñëwee duñu ak leer tey ñi jógee Touba nekk ci Touba amul kenn ku ci am gàkk gàkk xor te ba ñoom di nga yóbbaale ak leer kon siyaar tolluwaay bi mu ne su koo wax ak nee njëriñ ñu su borom dimbali ñu yàgg koo def lii ni ko ji jëwriñ waxee lii nuru nuru mbooloo wala nuru nuru lu néew néewut bariwut li ci am solo mooy pas-pas bi nit ku nekk nga nàmmal sa bopp amaat pas-pas jàpp si liggéey ndax lii dafa am cosaan cosaan bu ñu la nee basa nga trois mille cinq cent lan commencé daara jii kon am na cosaan mën laa wax ci daayira

زل النبي رسول الله صلى الله عليه ومن عن ko ñëpp ñaanal ndax nee na buñ bu ñëwee fii moom du ñaan ñaanal mu nañu ñaanal لي بقدرك يا من لي يجود بي بالحسن والأمن مني تقبل بي